aleykum salaam wa rahmatullah sang bi ñu ngi lay fay li nga xam ne suñu teewaay bii tey teewaayu taalibe la ci kër Sëriñ ñëw teewaay la boo xamante ni am nañ ci mbégte yu rëy a rëy rëy rëy ndax ñu ñëwoon siyaar suñu sëriñ Mouhamed Ibrahima Khalifa Niass macha allah barakallahu ah ziyaare bu dolleeku yàlla am nañ ci mbégte moo xamante ni mënuñu laa wax daal commencement mën nañu laa wax mën nañu laa wax commencement mais yem waaye siyaar ñëpp di rafetlu initiative tay bi di ñëw fii ci kër gi di kër Mouhamed Ibrahima ñas euh, comité bi nga xam ne moom moo nekk ci kër gi yor gestion bi yor lépp euh, di daayira aussi ñëwoon tey fii aussi ñëw ngir indi li nga xam ne moom mooy sukkur koor jébbal ko sëriñ bi waaye jublu ci sëriñ bi defal ñëpp ñaan kon donc ñi fi tey ak ñi nga xam ne euh, fii ci kër gi ñoom ñoo jiitu ci wàllu gestion bi ñu jiital leen ñu ngi taxaw ak ki ñuy wax euh, Papa Ibrahima Thiam ñu gën koo xam ci kër bi ci ngàtte mm-hmm. mi ngi taxaw nii di président bi euh, ci si bu Kayoor ñu dend aussi ak ki nga xam ne moom mooy Insa Diané di président ci beneen terrasse bi nga xam ne moom moo nekk fële ca Dakar ak li mu làmbool ci wàll liggéey bi waaye lépp di ngir jëmmal liggéey bi ngir taaral kër Mame Khalifa Niass ngir ngir ngir dooleel liggéey bi kon donc euh, GSPM TV bu ñëwee fii tey di def interview kon dana jaadu mu am question yoo xam ne tey dina ko xam ci ci bésu tay bi nga xam ne amal nañ fii ci ci yaa ngi taxaw ak Mohamed euh, Ngatte di président aussi euh, euh, nga xam ne moom mooy Insa Diallo si ay question dund gu neex lañ ko dundee dund ak bànneex ak mbégte ak kontante man mii di wax ak yow de man mu xeeb mi wax nañ ne maa seen njiit yéen ñëpp waaye damaa kontaan ba bég ba mënumaa wax daaw ma nangoo wax sax mm-hmm. waaye tey danaa wax nag ba wax jotee tey wax jot na daayira bi ñëpp dañoo mobilisé ñu ne dañoo kontaan ci seen sëriñ ñu ne nag léegi dañoo bëgg a ci suukar ci koor pour indil ko seen bi di ñaan yàlla nag mu sax abadan te xam ànd ak wér ak jàmm Dakar SA jiite ko moo yor bureau bi war a financé mais yàlla nay finance lépp nag yàlla na ko koppar yomb quoi muy jiite lépp di ko def barke naa laaj laa mu ànd ak délégation fii waa àll bi ñëw nañ kër Sambaraxi Njoobeen Julli Xaar ay bu Njuufeen benn Nduumeen kër Ngada Kuccey mba kër Njanko kër Saaweli Soota Siise ñëpp ñëw nañ Ndakaaru kenn desul waa kaw la fekk nañ siyaare waaye siyaare boobu ñaan siyaare mhm. siyaare maam xalifa la mhm. gàmmu gàmmu yonent yàlla Muhammad la mhm. kii nag suñu sëriñ la ñun nag ren dañoo jóg ndax dafa def lu rëy moom waxtu wi daaw moo tax jàkk yëpp ubbeeku waxtu wi rent moo taxaat ñëpp ubbeekuñ siyaare muy jëmm ji moo waral lépp nag taalib yi nag bëgg kontaan ne ñun nag dañ dem njukkalee ko nag siyaare ko ñun tim nag yóbbul ko suukar su koor fas yéene door ko ne at mu nekk ñu def ko mu ëpp rek d'accord tey euh, ci kër Mouhamad Ibrahima Niass ci bésu tay bi vraiment ngir euh, ñëw comité bi nga xam ne moom mooy organisation bi ak euh, soppe yeeg taalibe Mouhamad Niass yéen ñëw indi soloon koor GSPM TV ngir couvrir loolu tey ñu ngi fi ak le président du comité d' organisation Action Dakar ci sëñ Insa j'espère la wax tey lan moo leen poussé tey ba ngeen jóg tey bàyyi ko Dakar def benn caravane ñëw ne da ngeen indil suñu kii bi kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu leen di ziar bu baax TV ñu leen di ziar bu baax a baax di kontaan ci laaj bi nga xam ne laaj ngeen lan moo ñu poussé tey bañ mën a def suukaru koor wala bañ xalaat tey def suukaru koor pour indil ko Serigne Mouhamed Ibrahima Niass wax dëgg yàlla dañuy wax ne lu jot yomb te lu yàlla dogal kenn dara yaakaar naa ne suñ ko xoolee fi nga xam ne fi la déparé base bi nga xamante ni moo ko xalaat bañ génnee ko lu ndaw la euh, mën nañu wax ne sax ki ko doon génnee xëy na ci ay kii la ko génnee woon nii rek waaye yàlla barkeel ko ba nga xam ne ni ko gis tey moom yéem nañu bu baax a baax yéem nañu bu baax ndax tey fu nit fu nekk nit jóge na ko ci biir Sénégal laay wax wax ma Dakar kese waaye ci àll bi fépp benn Touba Mbacke tey am na ñoo xam ne jóge nañ fa euh, ñëw di tamit ci programme bi macha allah ñu rafetlu ko lool te di ñaan yàlla nag mu continuer ndax tamit dañoo am benn kilifa boo xam ne bu nekk Serigne Mouhamed Ibrahima Niass léegi bu ko xamal moom na ci biir yàlla tey su jumaay Sénégal bi julli bi ji jamono ci jamonoy corona bi gannaaw yàlla tey si moom la jaaree programme ziar yi nii di am ci biir dëkk bi tey wala gàmm yeeg màggal yi tey jii nii su ubbee mën nañuy wax ne tey gannaaw yàlla ci moom la jaar kooku nag tey jii dafa am benn mbooloo boo xamante ni mu nekk ay taalibeem ay soppeem ay xaritam ay wëlëreem comme ni mu koy waxee léegi nag dañoo nekk ci ginnaaw nga xam ne lépp lu mu nekk ñu nga lépp lu ñu bëgg ko lépp lu ñu xalaat lu baax tamit nañ ko ko defal incha allah. sëñ est-ce que mun nañ xam ndax li nga xam ne ñëw tey def ko tey. muy bàyyeekoo Dakar def caravane indi daan def ak done, done, lan moo leen poussé à ce que ngeen def ko tey. mosuñu ko def suñu la waxee rek xëy na daan nañ ko def ci ku nekk soo amee sa suukaru koor nga yónnee soo amee loo yónnee ne am lii sama suukaru koor waaye comme organisé bi ñu ko def nii ren mu nekk comité d' organisation bu kër Serigne Mouhamed Ibrahima Niass. mën nañu wax ne section Dakar la ñuy waxee nii waaye nag mën nañu wax ne section tamit nationale la ñuy waxee ndax tamit ñëpp mën nañu wax ne. comité bi fepp la nek tay ji ni ñu koy soga def ni ñu koy soga def programme bi ñu koy soga a def tay la 25 euh la 25 avril 2021 ñu soga et am ni tay nak comme ni ma la ko waxe rek li ñu si poussé daal xamuñu ko bu euh, jot la yalla def mo tax da wax rek yalla dañ ci am contact bu baax baax xam nañ ne amuñu suñu ci rek tax ñu gis bii wax rek yalla yaakaar na na bet na ñu bëree ko ñu woon dina mel ni way sant yalla bu baax a baax. macha allah. sha Allah wala 4 ans waaye nekkul Dakar kese ndax national Sénégal fépp la koñ bo dem rek ci ko gis ko xamanteni tay ci comité bi la bokk te yaakaar na ni ñepp bëgg nañoo bokk ci comité bi ndax suñ ko xolé ren ji 2021 bi bi nga xam tay tey ñoo inscrire ci comité bobu suñ la ko waxon tay doo ko ñu xam amna avancement bo xam machallah macha nak ñun tamit ci ñun la defee ñun ñi nga xam ne ñoo organisation bi il faut tamit ñu amaat beneen euh, beneen gis-gis wala beneen euh, xam-xam boo xamante ni tamit dinañ ko génne waa beneen taxawaay bu gën a dëgër bii ñu nekk nii. ndax tamit wax dëgg yàlla yokk gi mu yokk daal yéem na ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon ku ko xamoon démb tey nga xam ko tey ku ko xamoon nga xam ne am na changement bu baax a baax te yaakaar naa ne ñu ngi ci programme boobu euh, te lépp luy doole doolee Serigne Mouhamed Ibrahima Niass rek taxaw nañ ko def ko incha allah soo gisee soo ñëwee si biir kër gi fii. soo ñëwee ci biir kër gi fii soo ko laajtee dinañ la wan fan ngay jaar wala su dut loolu noonu tey su ngeen wootee ci 77 576 45 59 di ngeen ci am ay renseignements yu gën a leer yoo xamante ni tey dinañ leen teg si yoon. non non nekkul ziare kese waaye ziar bu ñëw rek am na luñ ci war lool képp ku bokk ci biir comité bi gàmm bu ñëw am na luñ ci war lool képp ku bokk ci comité bi même sukaru koor bi xam ne ren lañ ko commencé moom itamit dinañ teg. loo xamante ni tey moom la doxee ndax tey ren lañ koy soog a commencé te dinañ gën a teg yeneen programme yoo xam ne si kanam pour ñu mën a fekkee beneen yoon ndax ñu yàlla tamit mu yem ren ñu yàlla mu yem dañoo bëgg mu continuer moo tax programme boobu euh, ñu ngi ci comme ni ma ko waxee ziar am na lu ñuy participer même gàmm comme noonu même tamit su dul loolu ñu ngi am benn groupe whatsapp boo xamante ni képp koo xamante ni tey bëgg na ci nekk. Euh, information yëpp soo ko xam incha allah. si Leewtoo TV ñu wax la ci tuuti nekk na site internet boo xam ne. دوم كرغي دي برودو كرغي دي فيرت كرغي دي ايتوديان دي غراس عبد الله ديكو تاخوال غا خامنا تاي بوبليكاسيون يي لي غيس كرغي ييب دافنا موم موي كيغا خامنا داكو جابات تا داكاي واخ ني بوبليكاسيون يي لي جيم تي كرغي موم دي فايات دارا مو تيغات ديف سيت انترنت دي تاي نيو دي كوبري دي فايات دارا كوم تاي جيسبيم تي بوبو لا نوبو dañ koy ñaanal yàlla rek dañ koy ñaanal yàlla dolli ko ci li nga xam ne moom la ko moom la leen sëñ bi di ñaanal sax wax étudiants yi nee nañ yi bokk ci kër maam Khalifa Niass ndax dégg nañ ko fii ci ziar bi mu wax bépp ndombal tànk boo xamante ni tey nit mën na ko takk ci kaw àdduna gëm na ne tey taalibe maam Khalifa yi nekk université mu nekk ay étudiants ak étudiantes yooyu ndombal tànk bu doomu aadama mën a am ñoom gëm na ne dinañ ko takk te incha allah ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax euh, comme TV bii nii macha allah dañ koy ñaanal moom itamit mu nekk ay télé yoo xamante ni macha allah daal fu waaye toll mën ko seetaan te loolu lañ koy ñaanal yàlla te gëm nañ ko ndax taalibe maam Khalifa Niass du am lu muy ragal taalibe Mouhamed Ibrahima Niass du gëm nañ ñu ñun ñëpp ci taalibe maam Khalifa Niass la gëm nañ ñun ñëpp taalibe Mouhamed Ibrahima Niass la moo tax amul lenn loo xamante ni tey dinañ ko taw amul lenn loo xam ne dinañ ko ragal lu dul lu dul dëgg lu dul dëgg daal moom dañ koy bàyyi mu jaar waaye luy dëgg ñu ngi tege ci yoon te gëm nañ ne tey ci yoon la jaar te incha allah lepp dina leer su soobee yalla ñu koy ñaanal yalla bu baaxa baaxa baax a baax. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. bon ñu ngi fii ak salu fi nga xamne tay tey ngi ko kër Mouhamed Ibrahima Niass ci benn sukur ko ñu euh, sympathisant yëpp ak ci euh, fidèle Mouhamed Ibrahima Niass yëpp tey dañuy fi am suukaru koor Saliou di membre euh, dynamique waaye. ñu xam ko ci kër gi ñu di ko wax Saloum tey ban sentiment am nga xam ne moo fi xaw ko waaw bu baax a baax ginnaaw bu ñu sant yàlla di suñu teg ci sedd bi ñu ngi sant bu baax a baax a baax di santaat képp ku si képp fii nii fii euh, nga xam ne mooy indi suukaru koor bi ndax kat lii kat c'est la première fois ñu koy gis fii ci diwaan Léona Niassène yaakaar naa tamit ñaan nañ bu continuer boo xam ne day am infinité day am infinité fu mu am ko mu mel ni da moyen d'infini ta plus d'infini nga xamante ne amul kenn xamul fu muy yem mun nañ ñaan yàlla mais xool bu kontaante la ñuy waxee ndax barke Khalifa Niass ñun lu ñu am lu nekk rek kër gi la lu ñu am lu nekk rek Mouhamed la man ma nekk ba ndaw am deux ans à l'âge deux ans laa topp sëñ bi damay toog bay def sama morom naam yow yow Saliou moom nag yow la di jàng ma ne loolu bu tuur rek xool ba la sama xol bi Mouhamed moo ci ne barke Khalifa Niass laa la waa tax à l'âge de tuuti laa ko topp bu may def ma dégg maa ngi nekk ngay wax bii nii mais pour def lu xamante ne lu maa ngi koy def di si koy gëm bu baax a baax di koy sant ndax ginnaaw yàlla moom moo ma koy yebee di tamit di waxaat gars yi nii rek la ndax nit moom am kuréel sëriñam yaakaar naa comme ni ma ko waxee sànq nii ñun ñoo mën a defal pays bi kër gi ñu ñoo ko war mën a defal am na yeneen yeneen projet yoo xam ne ñu si biir suñu xel yi incha allah incha allah fas yéene ñu réaliser ndax soo gisee ni taalibe yi ñun ñoo fi def ziar bi passé nii kon nag aman na leen leen la xam ne ñu koy sow pour def incha allah de ñu ñaan yàlla au moins yàlla motali suñu yéene si kër gi boo au kër gi ku ko ñu bàyyi seen rek dañu xam ne taalibe Muhammad yi ñoom ñoo ko def ñoom ñoo def lii nii comme ni mu ko waxee woon sànq nii rek tey jii dañ contentement daa am fu commencé mais yàlla wallaahi wallaahi wa taala amul fu yem kon nag au moins sa ci daal man ma sa di wax si ay rajo wala di wax li nii mais maa ngi ko bu baax a baax tamit su nekkee daa am si man xewu mi la mais su nekkee daa am lu rafet xam ne lay sëñ bi la maa ngi ci pouvoir wala wala wala merci beaucoup jërëjëf kon j'espère ñu lay sant di la gërëm bu baax ci liggéey bi nga xam ne euh, moo wax ko encore une fois yaa ngi koy def ci kër gi di la wax ne la bul tàyyi bul tàyyi bul déglu dara. ñu lay sant di la gërëm di yow ak sa équipe bi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ci liggéey kër gi tey kontaan nañu ci bett bi nga xam ne bett nga ko ñëw couvrir li nga xam ne moom mooy événement te defe naa kër gi kër gi kër la goo xam ne defe naa lépp benn. lépp benn la te initiative bi nga xam ne tey moom moo fi am tey nii defe naa tey initiative boo xam ne la tey biñ ko médiatiser defe naa yeneen taalib bi yëpp danañ ko roy parce que buñ buñ ne ñëw ñëw leew na ku mel ni sama genre bi da ngay ñëw gàmm da ngay ñëw ziyaare mais ñëw ñëw ngir jóg ziyaare sa sëriñ doo ko def te loolu dafa nekk lu am solo te loolu defe naa tey boo bëggee comme ni ko seen bi waxee boo bëggee yokk da ngay yokk te defe naa tey taalibe yi dañoo yokk jóg ñëw jël initiative ngir indi suukaru koor ziyaare sëñ bi kon donc ñi ngi ñaan yàlla yàlla saxal loolu ñi ngi ñaan yàlla aussi ci yàlla xaasal ci GSPM mhm. TV bi ci ñëw bi nga xam ne ñëw na ko couvrir événement bi fépp média di dem rek yàlla na ko dem yàlla barkeel yàlla mottali lépp ci barke alxuraan ànd ak soxna yi nga xam ne ñëw nañ ci xew-xew bi nga xam ne am na fi tey muy xew-xew boo xam ne dafa naa xew-xew mbégte la xew-xew bànneex la muy taalibe yi ak soppe yëpp ñëw tey ngir indil sëñ suukaru koor waaye soxna yi macha allah kenn demoon ñu des ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ci ñu ngi fi ak Fanta Khady Diop ku ko xam-xam ko ci bëgg sëñ bi ak liggéeyal kër bi ñu di ko wax sax Baye Fallou Mouhamad Ibrahima kon sànq tey bu ñu la doon wax laaj tey man nga man nga dundee bis bi nga xam ne xew na fi tey ban yëg-yëg nga ci am ak ci am. bi rek di nuyu di leen ci sëriñ bi kontaan bi nga xam ne moom la ko gone yi ci biir waañ ñu ngi gis si si tool kon ñu rafet xale yi woyal ko ko dama caa kontaan ne ñun Sénégal ñu fi gën sëriñ na sëriñ boo xam ne mën nañ ko tiitaroo Sénégal mën na ko sagoo na ko sagoo a julli dañuy dox takkaloo suñuy gémmañ dañuy raxasoloo ñu bañ ñu jegaantoo te moom la jàmm dina mel kon ñun kontaan nañ ci Mohamed Alaaji Ibrahima dama demee wax ne man xarit Mohamed Niass ni ñi mbaam mbaam de kenn du ko tabaski te mag yàggal ñoo ñaan yàlla ñàlla may ñu mucc nit ba mucc ci tabaski kon loolu laa ñaanal nag laa jëndal ñu ñaanal nag yéen gone yi nga xam ne yéen nekk suñuy doom suñuy rakk ngeen neex àndal lool ci bis bi ndax su ma ne gëmm leen ngeen gëmm ne xool la ngeen xool lépp mu ma ñëw sa tax su ma ñëwee ma de bu ñëwee ci waa ji amatul mag amatul yaay amatul bàyyi

kon Ida Gueye kontaan nañu gën nañu sant nañu gërëm nañu. jërëjëf. yàlla na ko fa yàlla yeggal ñi ngi ci kanam ñi ngi ci ginnaaw jiitu ñu ragaluñ nag ndax ku jiite lu yem ñu ko muy gis rek amatoo jiitu ndax daf ne mooy suñu armée waaye ñu ne ñu ñu aw fii la ñu fii waaw li ci des yëpp daal nañ ko ñaanal man dëgg yàlla di ñaanal képp ku fi teew na muy góor muy jigéen yàlla nañ ko fi ay jiw yu bëree bëri bëri te fekkee